Tiens, tiens, tiens. Qui, qui, qui Non, non, non, non, non. Ah, c'est bon. Nice, hein Grand arrière, arrière. Ça, oh. Ça, arrière, arrière. Ah, yeah. maanaam. non non non man kay su ma ko doon rek leer na. am am am leen am leen. non non am am. c'est bon ah. ñoo leen. waaw waaw yoon lañ jëkkër foto bi foto bi. maman maman maman maman ok c'est bon c'est bon c'est bon. ana ko biir ba. Amady yaa wër. Thank you. waaw waaw

Woo! demal demal maram maram na keneen ñëw na keneen ñëw na keneen ñëw laa mujj

Para, para, para, bàyyi ma nekk bu gaaw bu gaaw rek Thank you.

li ñuy wax ni bu dee nii waaye ma wax ne a dama leen leeral rek mënoo fa takk ñëpp leneen laa leen bu ngeen mën a organiser mën na fa takk ñëpp mënul loolu mën na jël ci woon niiram fi ak yéen ak ñëpp mën na jël temps beneen tur bi am na nekk ñu commencé dem leen nekk kër yàlla may leen nekk voilà merci Gel, gel, gel. ñi ñoo war a ñëpp na ñëw ñëpp na ñëw